بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وشر الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذه كلمة أتوجه بها إلى إخواني في هذه المناسبة السعيدة وعنوانها لعلكم تتقون mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bu ñu ubbee xutbatul xaaja bi nga xam ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam moom la daan ubbee mépp mbir mu ko itteel ñi ngi leen di nuyu di ñaan suñ borom tabaraka wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla te fulal ñu ko gën ñoo dëgëral it ba weer wu tedd wii li nga xam ne mooy li ci war nu taxawe ko ci tawfiixi sunu borom tabaraka wa taala ak nangulam comme ni ko Cheikh Ibrahim waxe kaddu yi nga xam ne moom lañ fas yéene soxlaale jataay bi ñoo ngi koy jëmale ci benn baat bu màgg boo xam ne dafa nekk ci biir alquranul karim te jëm ci koor mu di li sun borom tabaraka wa taala wax ne laallakum tattaquun loolu danañ ci ñëw ci kanam waaye balaa loolu ñu tàmbalee ci ne weeru koor gan la goo xam ne dafa am nuñ ko war a teeroo dëgg la sax xëy na kenn ku nekk ci nun ñàkkul ak teeru goo xam ne teeroo nga ko ko waaye it ba tey teeru gi weesoogul ginnaaw gan la goo xam ne ba fii nu toll daanaka sooy boo ñu ne fukki fan yi jëkk yi rek mooy door a mat kon des na ñaar fukki fan ci kanam kon wax lu jëm ci teeru gi faatul ba tey ndax yenn jëf ju baax rek ci seen saa sunu borom tabaraka wa taala dana ci baaxale mbirum ab jaam kon nag ginnaaw jàpp ndaluk ñaar fukki fan des na ci kanam kon fàttalente ci teeru gi itam lu am solo la كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر الصحابة بقدوم رمضان فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم ويغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها حرم رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa bokkoon ci mbiram moo di ne daf daan bégal saxaaba yi ci dikkug Ramadan su daan bëgg ñëw daf leen di bëggal ci loolu abu hurayra mi ngi nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mas naa wax di bégal saxaaba yi noonu la ko abu hurayra waxe mas naa wax di bégal saxaaba yi ay saxaabaam mu ne leen day aw weer dikk na muy weeru koor weeru ramadaan mu ne nag muy weer wu barkeel di weer woo xam ne yàlla moo farataal ci yéen ngeen woor ko di weer woo xam ne bu dikkee bunti àjjana yépp dañ koy ubbi afal bunti sawara yépp it dañ koy ubb weer la woo xam ne bu dikkee dañuy jéng seytaane yi yàqal doomu aadama yi weer la woo xam ne guddee ngi ci goo xam ne moo gën junniy weer junniy weer mu ne guddi googu nag képp koo xam ne fexe nga bañ xañ la aw yiwam kooko mooy kuñ xañ képp koo xam ne fexe nga bañ xañ la aw yiwam kooko mooy kuñ xañ yàlla bu nu yàlla xañ aw yiwam kon wax dëgg yàlla loolu doy na mbég toog ci mu at ba mu yàgg ñu jekki-jekki ne la weer a ngi agsi woo xam ne lii la làmboo weer a ngi ñëw di woo xam ne yàlla farataal ñu woor ko weer la woo xam ne dañuy ubbi bunti àjjana yi ubbi bunti sawara yi jéng seytaane yi yëgal la it ne guddee ngi ci goo xam ne moo gën junniy weer ah kon mbéga ngoog moo xam ne du mbég mu ndaw lépp loo xam ne jullit daf koy bégee mbég mii ci la war a gën a bég lépp loo xam ne jullit bi daf koy bégee mbégum dikku weeru koor ci la war a gën a bégee loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan bégal kon saxaaba yi ci woowu weer jële nañ ci abu hurayra عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له benn xadis la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci tudd ñett ne toskare nañ ci nu ci gën a itteel fii mooy kii daf ne toskare na itam day waajoo xam ne weeru koor dikk na fekk ko fa ba dem te jéggaluñ ko lu weesu woon ci ay bàkkaaram kooku doon xadis boo xam ne bu wér la toskare na képp koo xam ne weeru koor dugg na fekk la fa ba génn bàyyiwaat la fa nga yor sa bàkkaar yi nga yoroon lu jiitu loolu kon loolu li muy tekki mooy weeru koor bu dikkee ku ko jox xaqam warutuloo dese bàkkaar la àggale xadis bu mooy def caa tuddaat ñeneen ñaar ñoo xam ne ku ci ne def ne toskari na kenn ka mooy koo xam ne tuddees na yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa moom te julliwut ci moom ka ca des mooy koo xam ne fekkee na dundug ñaari waajuram wala kenn ci ñoom ñaar te dugaluñ ko àjjana maanaam jëfalu leen jëf joo xam ne mën naa doon sababu ak dugg àjjanaam kon ñett ñooñu ñooy ñi toskare waaye ki ci gën a itteel ci jotaay bii mooy li mu wax ne képp koo xam ne weeru koor dugg na ba génn dugg na ba génn te jéggaluñu la say bàkkaar kon loolu toskare la kon loolu day yëgle ne weer wi doonut lu doyadi mbir la moo xam ne bu duggee kon jullit bi ni mu war a bégee it kat noonu la war a tiite dafa war a yëg ne moom mbégte mu rëy rëy rëy ñëw na waaye kañ lay doon mbégte mooy su fekkee màng na yiw wi waaye nag su fekkee màngul yiw wi wala yaasu billah kon kooku toskare lay doon loolu moo tax asalafu saalix كانوا يهتمون برمضان اهتماما خاصا فعن يحيى بن أبي كثير قال كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا كن السلف الصالح لول مو تخون ني اتيو ويرو كور اك اتيو بو ماغي ماغي imaam ju ñuy wax yaxya ibnu abi kathir mu ne bokkoon na ci ñaanu asalafu saalix su fekkee ramadaan a ngi bëgg a ñëw dañ daan wax naan yàlla yàlla nag ma musal ba ma àgg ak jàmm ci ramadaan maanaam yàlla naa dund ba àgg ca yàlla naa am itam wér gu yaram ba man koo joxe kon mucc ba àgg ca ak am wér gu yaram boo ko woore loolu mbir la mu yeyoo jullit bi di ko ñaan boroomam mu ne ñu teg ci itam mu ne ko yàlla na nga ko def moom ramadaan mu doon ak mucc itam ci nun te it yàlla na nga ko nangu ci nun ñaan googu lañ daan ñaane wa an almualla bni alfadl an alsalaf كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم لا إله إلا الله نانا السلف الصالح نين دان دف mooy daan nañ toog juróom benn weer yoo xam ne li ñuy ñaan mooy yàlla nañ fekki ramadaan juróom benn weer yi yàlla yu ñuy toog di ñaan a fekki ramadaan suñ ko fekkee ba mu jàll danañ toogaat juróom benn weer yoo xam ne dañuy ñaan lañ fa def ci ramadaan bi weesu yàlla nangul leen ko kon su jeexatee rek juróom benn yooyu àgg tàmbali nañu ñaanati fekke weer wi ñëw kon ñooñu ramadaan wax dëgg daawul dugg ci seenu dund ba romb te yëguñu ko dara soppikuwut déedéet ñoom kon seenu dund ci ramadaan dafa ramadaan ci seenu dund dafa am lu mu doon tekki dafa am jataay bu place buñ ko tegoon boo xam ne dafa am lu rëy lu muy def ci ñoom sax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu masaan di ñaan bokk na ci li muy wax mu ne allahumma barik lana fi rajaba wa sha'ban wa ballighna ramadan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ne ci ay ñaanam ci xadis boo xam ne xadis xasan la boo xam ne tabaraani moo ko génne jële ko ci anas daf daan wax ne yàlla yàlla nag nu barkeelal ci rajab barkeelal nu ci itam ci weeru shaabaan waaye nag yàlla na nga nu àggale ban fekk ramadaan kon kooku ci ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la bokkoon kon mbokki jullit yi suñ toogee suñ seetlu sunu mbir dañuy yëg ne axada achara shahran madat alayna wa hiya musajjala imma lana wa imma alayna summa aadat nicmatu ramadan saa bu ramadan jàllee bu ne nan yëg ne am na fukki weer ak benn yoo xam ne yu ca tegu la fukki weer ak benn yooyu yëpp lu jàll la yoo xam ne la nga ca jëf lépp ci ay jëf bindal nañ la ko bu dee jëf yu baax alhamdulilahi ma nga fa bu dee safaan ba itam wal iyaasu billahi ma nga fa di la nekk su ko defee nag lay tax sa borom tabaraka wa taala indi xéewalug ramadaan muy xéewalug koor mooy nga jéem a góorgóorlu mu doon ci yow ab occasion boo xam ne da nga koy jëfandikoo ngir la faatoon ci fukki weer yooyu ak benn yépp guddi gii ñu la defal tam nekk ci ramadaan mu mat jànd guddi goo xam ne moo gën junniy weer ndax yàlla nga mën cee jëf lu la mën a wuutalal
bàyyi aw yoon fii ci bunt bi
ci la baax mën a fay dund ñaari jigéen waaw
suñu mënoon nañu ñëw ñëw leen may ñu jàll ñëw fi
kon li nga xam ne moo di fukki weer ak benn yi wéy jàll ci sa dund moo xam yow moom la wala dafa am yuñ ci gàcc ci sa loos waaye lu ci mën di xew fukki weer ak benn jàll na ci sa dund yoo xam ne danga jëf ay jëf te jëf yooyu xamoo yow moom la wala yuñ lay topp la yàlla wërsëgali la wenn weer boo xam ne mooy fukkeel ba ak ñaar jaam bi war caa jëfe ay jaamu yàllaam ngir ndax yàlla man ko baaxe mu daje guddi googu nga xam ne moo gën junniy weer ngir lépp lu ko faatoon ci fukki weer yooyu ak benn bu dee yool yu manqué woon ñu yokkal ko ko ba mu mat bu fekkee ne ay xeeti bàkkaar la woon itam ñu faral ko ko kon loolu ci xéewal gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala xéewale na ko jullit yi ci ramadan ci la bokk waaye bu loolu amee jullit bi war na laaj boppam ndax su ramadan dikkee hal min waqfatin saadiqa lil muxaasaba wa hal min wuqufin jaad lit taamuli wa tawbati wal awba ndax jullit bi war naa xalaat ne ramadan su ñëwee dafa war a wëlbatiku taxawaat xoolaat boppam xeltinaat régler régler ay jëfam la ca nekk ci yu baax yoo xam ne doon na mébét mu jëm kanam régler ay jëfam ya ca nekk ci ñaaw yoo xam ne warul woon a am mu taxaw rëccu taxaw tuubal boroomam taxaw delluwaat gannaawam mu yëg ne weer woowu kon weeru loolu la ci yi muy jëriñ ci la bokk إن قدوم رمضان نعمة عظيمة على هذه الأمة وللصائم صوم الأولين الصادقين فرصة لا تقدر بثمن weeru koor ci boppam xéewalu sunu borom tabaraka wa taala la bu mu xéewale xeetu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam képp koo xam ne taxawe na weeru koor woor ko na ko mag ñu baax ña daan woore yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak i saxaabaam képp koo xam ne noonu ngay woore saa bu weeru koor dikkee da nga yëg ne ak jàpp ndal dikk na goo xam ne mënee su koo jënd soo moomoon adduna ak li ci biiram joxe ko ngir ñu jox la weeru koor it taxut nga joxe njëggu mat te it jullit bi su xalaatee day yëg ne weeru koor xéewal la ci ay wet yu bari fa kam min qawmin kaana amaluhum an yacuuda alayhim ramadan fa xaaba amaluhum lu bari ci ay doomu aadama lu bari ci ay doomu aadama lu jiitu ramadan di ñëw ña nga toogoon di mébét ndax yàlla weeru koor mën leen faa fekk bañ màng yiw wu bari wa ca nekk waaye sun borom tabaraka wa taala dogal seen mébét moomee nañ ko doon mébéte amee wu na moo di ramadan dikk fekk leen ñu toxoo ci gii kër dem ca kër ga ca des mu di ñu faatu maanaam mbooloo mu bare bare bare faatu nañ diggante ramadan yi daaw ak joj ren kon nga xam ne xañ nañ ko ay bindeef yu bare bare bari wërsëgale la ko yow jullit bi bokk ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kam min qawmin ataa alayhim ramadan wa hum ala alfiraashi aajizun ñaata ñoo am ci ay doomu aadama yoo xam ne ramadan dugg si na fekk bi mu ñëwee ña nga ci seen kawub lal mënuñoo wàcc mënuñoo yëngal dara mënuñoo woor sun borom tabaraka wa taala baaxe la yow may la wér gi yaram may la ak fekke may la ak bokk ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir nga mën a woor weer wi kon xéewal a ngoogu koo xam ne jaam bi war naa taxaw ci sant ko wa kam min qawmin ataa alayhim ramadaanu wa hum tuasaau yartacuuna fi mustanqacaati aljahli waddalaala ñaata nit ñoom la weeru koor dikk fekk ñu nekk ci ëg réer ak caaxaan gaa fekke nañ gaa tuddoo nañ sax ay jullit ña nga yor seen wér gi yaram waaye gindiku wuñ ña nga réer nekk ci ay caaxaan ba ñàkk a woor weer wi mu romb leen faat leen xàmmeewuñ ramadan ak rajab muy xasaara département bu mag ci commerce mu àdduna mi jëm alaaxira sunu borom tabaraka wa taala musal la ci yow mi bokk ci xeetu muhammad te fekke te am wér gi yaram sa borom jubal la ba weer wi faatu la ci wàllu koor kon xéewal ak ngoogooti goo xam ne laa yuqaddaru comme niñ koy waxee bi saman ku ko doon nattale di seet njëgam lan la doo xam njëgam lan la war a doon ci àdduna ak li ci biiram wa kam min qawmin adrakahum ramadan fa saamu lakinnahum jacaluu ramadan shahra juucin nahaari wa shibacin wa cabasin layli falam yakun ramadanu binnisbati lahum wasilatan ila attaqwa فمر عليهم وهم على حالهم في الغفلة والمعصية والعياذ بالله ñaata ñoo am ci ay doomu aadama yitam yoo xam ne sax dëgg la ay jullit lañ weeru koor dikk na fekk leen fa faatuwuñ am nañ seen wér gi yaram ñàkku ñoo gindiku it ba bañ a woor ña ngay woor sax waaye seen koor doon koor gu matul koor gu matul mooy lan mooy koor goo xam ne xiif ak mar képp la ci bëccëg bi waaye bu guddee lay ittey boroom mooy fanaanee duy biiram fanaane ci kaf fanaan ci caaxaan fanaan ci po fanaan ci wax yu tekkiwul dara ba asamaanam set kon kooku day doon koor goo xam ne koor gu matut la ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañuy woor ba noppi ramadan du soppi seenu melokaan day jàll ñu yëg ne ñoom de wax dëgg ñu ngi doon xiif ak mar ni ko nit ñi doon defee waaye bu ñu xoolee seen bopp contrôler seeni mbir danañ gis ne nañu meloon ba weeru koor dikkagut ci ay càggante ak i rëcc-rëcc noona la ñu mel ba tey kon ñooñu ñooy woor kooruk xafla kooruk càggante kon nag jullit bi war naa am ak yëg ci ne xéewaluk ramadan ci yii lay amee suñ borom defal na la xéewalu bokk ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga dib jullit defal la xéewaluk fekke weeru koor defal la xéewaluk am wér-gi-yaram defal la xéewaluk nangoo woor ba noppi nag dolli ca muy koor goo xam ne dafa dëppoo ak koor gi ñu sàkku dafa dëppoo ak koor gi ñu sàkku moo tax ramadaanu rubba famin tamanna an alsharaabi aw altaam ظن الصيام عن الغذاء هو الحقيقة في الصيام وهوى على الأعراض ينهشها ويقطع كالحمام يا ليته إذ صام صام عن النمائم والحرام واستاك إذ يستاك عن كذب وزور واجترام يا ليته لو أنه فيما يحاوله استقام day mel ni kon bari aana gimiñu doomu aadama nga koo xam ne bu ramadaan ñëwee gimiñ googu de danañ ko ub bëccëg ba du lekk du naan gimiñ googu boroom a nga jort ne képp koo xam ne lekkul naanut yow koor dal nay am ci sa mbir ca nañ ko bëggee loolaay tax bu wooree ba lekkulit gimiñ ga dana nangoo yëngu ci deri jàmbur ci lu jëm ci wàllu jëw dana nangoo jàpp deri nit ñi di ko dagg ni jeesi di daggee la muy dagg mu ne cëy ak a neexoon kooku ba mu wooree aka neexoon ba mu wooree mu wooraale jëw wooraale rambaaj wooraale fen wooraale lépp loo xam ne lu xaraam la aka neexoon ca bëccëgub koor ga ba muy soccu mu soccuwaale ba nafa yu salte yi di jóge ci gémmiñam dem fen ak waxi nar ak lépp loo xam ne tooñaange la mu soccuwaale ko mu dem aka neexoon lii mu bëgg muy sóobu ci yoonu koor joxe ko na ko yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam joxe woon ci saxaabaam ak a neexoon yoon woowu ubbi ku ci kanam kay woor mu leer nañu ci kanamam mu woore noonu ndax loola mooy doon koor gu wér kon koor ci boppam lan moo tax nuy woor ab laaj la boo xam ne jullit bu nekk dëgg la war na ko laaj boppam sunu borom nag amut lenn lum santaane loo xam ne dara taxut mu santaane ko ma min ibada illa wa laha xikmatun tashriiya amul genn jaamu yàlla lu dul sunu borom tabaraka wa taala am na lu tax mu santaane ko waaye nag su santaane woon i jaamu yàlla te xamunu lu taxit kat nun lanu war rek mooy jëf lanu war kon itam mooy jëf lu bari nag ci doomu aadama yi su fekkee ne ñaari laaj yooyu mu di lan moo tax la ñuy woore lu tax ñuy woor ak nan la ñuy woore ñaari laaj yooyu nga xam ne jullit bi war na koo laaj boppam jamono yu ne buy dugg ci koor ngir màggaayu ramadaan lu jëkk ci nu ñuy woore moom jarut sori siyaam ak qiyaam ñaari yooyu ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee ak i saxaabaam rek la moom ku ko jàng ku nekk xam ko ci wàllu jëfin wi day daal di doon loo xam ne bi mën a jàpp ni ci jullit la kon ci wax ju gàtt mooy sum wa qum kama kaana yasuumu wa yaquumu nabiyuka wa salafuka saalix wooreel na yonente ba sallallahu alayhi wa sallam daan woore ak i saxaabaam booy taxaw di julli julleel na yonente ba sallallahu alayhi wa sallam doon jullee ak i saxaaba mu des nag laaj bu rëy bi lu tax nuy woor laaj boobu mooy sun buntu waxtaanu tey kathiru min annaasi yasuumuun lakin alqalila minhum الذين يدركون لماذا يصومون ولا بد من معرفة ذلك حتى لا تتحول هذه العبادة العظيمة بأهدافها ومقاصدها العالية إلى عادة ثقيلة te nag lu bari ci doomu aadama yi woor néew na ci ñoo xam ne xam nañ lan moo tax ñuy woor te loolu lu mat a xam la ndax suñ ko xamul jaamu yàlla gii di koor li muy màgg màgg ak li muy rëy rëy ak li mu war a def ci doomu aadama ji loolu day mujj soppiku jenn aada joo xam ne dañuy wax rek ne xeet wi aada woo nañ am na weer woo xam ne bu agsee duñu lekk duñ naan ba mu jeex su ko defee buñ koy séentu la ca gën a fés la cay gën a fés mooy ñàkk gaa lekk ak ñàkk gaa naan te loolu kat lu diis ci bakkanu doomu aadama la weer woo xam ne lu ngeen koy xamee ñu ne ñàkk a lekk ñàkk a naan bëccëg bi kon weer wu diis lañ koy daal di jàppe waaye fekk ndekete ndekete ñàkk a lekk gi ak ñàkk a naan gi loolu taxul ngay woor dafa am leneen loo xam ne leneen loo xam ne moo la tax di woor loo xam ne bokkul ak ñàkk a lekk ak ñàkk a naan rek li tax nag mu jaadu kuy woor ku ne xam lu tax muy woor mooy nit ki buy jógee xam fa mu jëm ab doxam day daal di mën a gaaw bu xamee fa mu jëm xam lam jëm ab doxam day mën a gaaw moo tax dañuy wax ne wuduxul hadaf yusahilu alayka almuhimma wa yaxtasiru laka tariq fa nga jëm su leeree nañi rek nga xam fi ngay jaar dem dalay daal di yomb kon lu tax nuy woor ayuha alixwatu alkiram يجب أن نعلم أن الله الرؤوف الرحيم بعباده لم يكن ليشرع الصوم لمجرد الجوع والعطش وهو سبحانه وتعالى أرحم بعبده من الأم بولدها kenn ku nekk war naa xam ne sunu borom tabaraka wa taala comme lim saxe ci xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla gën a yërëm jaamam yi ni ndey di yërëme doomam ju ndaw doom ju ndaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis jenn jigéen joo xam ne doom ji dafa toogoon musiba di bëgg a dal ci kawam wala mu réeroon yaay ja mu gis ko song ko këf ko bi mu gisee doom ji ba këf ko ni mu ko tafe ci dënn bi di ko nàmpal yonent bi ne leen ndax kii jàpp ngeen ne dana jël doomam ji tàbbal ko ci sawara ñu ne ko déedéet mu ne leen yàlla ni mu yërëme jaamam yi moo gën a tar kii ni mu yërëme doomam ji ah su fekkee yërmaande suñu borom tabaraka wa taala foofu la àgg ci jaamam yi kon kenn ku nekk xam na ne du leen yoonalal dara ngir teg leen aw metit rek ngir jóg rek ne leen yendoo leen a bañ a lekk yendoo leen a bañ a naan ba ngoon fekk loolu dong la ci jublu déedéet loolu suñu borom tabaraka wa taala du ko def te moom moo di rauf rahim moo melal boppam ci alquran ne moom mooy koo xam ne mooy yërëmaakon bi mooy ñeewante waakon bi ki nga xam ne képp kuy am yërmande wala nga am dara ci ñeewant moom suñu borom tabaraka wa taala moo la ko may loolu moo tax comme niñ ko waxee su fekkoon ne waral na nen woor leen rek te waxuñu itam lan moo tax nuy woor kon danañ xam ne kii yërmaande ji nu xam ci moom la tax mu nuy woorloo du lii nuy gis rek ci biti mu ñàkk a lekk ñàkk a naan am na leneen lu tax ci gannaaw waaye nag ànd ak loolu téewul moom sunu borom tabaraka wa taala ànd ak ne bariwut nag lu muy def lu mu yoonal lu nekk ne nanga ma ko tax a jóg lu mu yoonal lu ne ne nanga ma ko tax a jóg waaye koor moom moom borom bi tabaraka wa taala moo méngoo yarhamukallah moo méngoo leeral lan moo tax mu santaane ko daf ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun laallakum tattaquun faratal nañ ci yéen koor niñ ko farataale woon ci xeet yi leen jiitu woon lu tax mu ne laallakum tattaqoon ngir ngeen ragal yàlla koor daf lay yóbbe lan kon ragal yàlla ah waaw ragal yàlla nag moom ku ko am yow yaay kan kooku mooy ko am ajjan mu jeex ku am taqwa kooku mooy waa àjjana waaye nag diisul tëb tëb rek ne am naa ko day am nooy mel day am nooy mel ba ñu xam ne kii dafa ragal yàlla ki ragal yàlla kooku mooy wàlliyu yàlla yàlla daf ne in awliyaauhu illa al muttaqun amul wàlliyu lu dul ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ñi ragal yàlla ñooy ñi nga xam ne yàlla day nangu seen jëf innama yataqabbalu llahu min al muttaqin ñi ragal yàlla